diggante diggante Thiandoum 2 ak euh, Brise de Mer ndax kii dafa nekk dafa nekk ci Birame Ndiaye kii nekk ci Père Ndiaga waaw muy ñaari doomu ndey yu daje en tout cas Thiandoum euh, Brise de Mer Brise moo gën a moo gën a volumé moo gën a taxaw moo ëpp mais mi ngi bëri booy boo xam ne ñu wax Thiandoum 2 xam naa ko baax xam naa Brise xam naa Thiandoum waaw ndax Thiandoum bërikat la te bërëm te lamam day metti lamam du yomb waaw gis mosuma seetaan benn làmbam bu sedd làmbam yëpp euh, tension la te da ciy mujj am ndam waaw daanaan la daal. Ah, lan lañ mën a xaar ci combat boobu. waaw xeex ñun ñaar foog ñu xeex waaw foog ñu xeex nag foog ñu xeex dooru bëre dina dina dina bëri xeex. waaw waaw balaa ñu balaa ñuy jàppante dinañ doon dina saf sap ñu doon a jàppante. kii di la mooy avantage. moo moo ëpp taay moo ëpp taay moo ëpp rallonge tuuti mais caa du. boo koy conseil mm, waaw bëre bu gaaw rek ak moom xeex waaw xeex bu gaaw rek rek moom waaw. ñu dem ci combat bi nga xamante ne mooy Angleterre ak Madji Madji. waaw xam nga Angle xam nga Madji Madji moo ëpp victoire moo gën a compétir sax booy seet ndax ndax ndax Angleterre jóge na ci depuis moom caaka fay la ko joon ci làmb Madji Madji ndax Madji xeexkat la Angleterre xeexkat la mais Madji moo gën a moo gën a agressif waaw te te moo ëpp contact waaw en tout làmb la joo xam ne ñaari ñaari xale yu ñuy jàppale yu réeroon ci làmb ñu bëggoon mel lu leen fàtte Ousin ñëw jàppale leen nag loolu moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy spécifique bi ci biir waaw xam nga Angleterre gi ñu ne bëre yaa ngi ci làmb ji yàgg na safa léegi mi def trois années blanches bëriwul voilà majj majj def naa daaw bëriwul da def kon nag làmb ju neex lay nekk majj majj ne ko maa la dàq bëre bon wax yu mbër la xam nga sa adversaire fa nga wax loolu mais ñu en tant que en tant que en tant que observateur làmb en tant que magu làmb cinquante cinquante la cinquante cinquante la waaw Angleterre bi. waaw waaw mooy li ma wax rek mooy li ma wax rek cinquante cinquante la Angleterre tam ah, poids bi la bëri woon ak Caaka Faye te te si combat bi seet nga ko dafa metti dafa metti trop Caaka dafa mujj xaru ci kawam indil ko mbapat door koy door koy am ak ak relonge bi Caaka yor loolu la ko dominé mais xeex ba booy seet tàngoon a jër waaw moo tax ma leen la kon làmb ji neex leen cinquante cinquante ah, gisuma ci favori daal. gisoo ci dóor mu daanu ndax Angleterre xeexkat la. te majj majj dafa xaw a féete suuf. non majj day ñëw dañuy bëre gisuma fi doon mu daanu ci lamb ci bëri lay jeexee lamb ji <laughs> ci bëri lay jeexee. Modou Mbaye ñu ngi lay jër di remercier maa ngi lay kontaanee di la jaajëfal <laughs>